bismillahi min asheytaani rajim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu sëriñ bi ndigalu sëriñ bi mu jaar ci sëriñ Bassirou Mbacké Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ni moo yore kàddu yoonu murit di ko sant moom sëriñ Bassirou ci defar gi ak yaatal gi ak saa soo nekk mi ngi xool la yàlla mu koy def kon ñu jiital ay siyaar rek ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ko yàlla guddal faram may ko wér ba mu àggale mébétam bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam siyaar mboolem njabootu sëriñ bi yëpp taalibe yépp bàyyiwuñu kenn eh, lii nag muy lu rëy loo xam ni dafa bokk ci li feeñal ñaanuk seexul xadim radiallahu taala anhu kenn umpalewul ni tuuba almahrusa gi ñu nekk cheikhul xadim moo ko sancal boppam ci atum 1887 jàpp 1889 88 nga xam ni juróomi royaume ñoo seqoon dogit wii di Touba ci histoire gëstuñ ba sonn ba tàyyi waaye mosuñu gis benn moomeel boo xam ni mas na nekk ci loxo yi kenn muy lif ko Touba e nga xam ni buur Siin buur Saalum buur ba Jolof bat Geer buur Kajoor yooyu ñoo seqoon Touba Touba ne ci seen digg mu nekk dikku dëkku leer boo xam ni suñu borom moo ko tànnal Cheikhul Khadim won ko ko ba mu sanc ko ci at moom ma leen wax 1887 jàpp 1888 nga xam ni bi mu ko sancee boo demee fii kër Cheikh Saliou Mbacke ci biir am na menn mbaar mu fa nekk mbaar moomu ñu ko tuddee ma Matlaboul Fawzayni fa la sëriñ Touba toogoon ñaan li mu ko ñaan. ci dëkkam bu sell bii di Touba ni mu war a mel lépp itam ak li fi war a am cheikhul xaddim ñaan na ko boromam junj ko ci biir xasida googu la ca jiitu mooy ca njaal bennu xasida ga mi ngi wax naan mbind mi maa ngi bind ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba dëkk bi nga xam ne suñ boroom ñoŋal na ko ci lépp lu ñuy ragal ak lépp lu ñu sib loolu rek doyoon na ci xasida gi mu wax ci biir ñaan boroomam dëkku leer dëkku xam-xam dëkku alxuraanul karim dëkku njub dëkk royuwaay dëkk royukaay dëkk boo xam ni dañ fay taxawal julli juróom foo toll jàkk yeeg jumaa yi ñu ngi nodd waaye nekk dëkk boo xam ni lépp lu doomu aadamay soxna soxla ci terangay àddinaam suñ borom defal ko ko fi ci wàllu ndox ci wàllu fànn gépp wàllu fànnu wér-gi-yaram ñaan ci boromam ni maa ngi lay ñaan yow yàlla suñu boroom nga wutal ma ay ngër mu bàyyi ko ci mboolem ñeenti gox yépp jëm si Touba am ngër nag suñu ko waxee ma des na koo déggee ci lii tey ni autoroute illaa Touba bi pen la ci ngër yooyu kon li ñu tax a jóg ak li ñuy wax mooy loolu li nga xam ni mooy autoroute illaa Touba tam dugg ci biir ñaanu ko Serigne Touba nga xam ni président Macky Sall ñu ko ci sargal di ko ci ndokkeel ndax ñaanu ko Serigne Touba la bëgg bëggu Serigne Touba la waaye mu sottee ci ay loxoom kon mu war cee sant yàlla moom ndax fàttali ko itam ñaanal jàmbaar yi Serigne Touba ji nga xam ni mooy Cheikh Sidi Makhtar Mbacke radiyallahu taala anhu moom mi nga xam ni moo nekkoon juróom-ñaareelu xalifa Cheikhul Khadim te bi naa mag sàll di laaj réew mi fekk ko Touba fii ci premier tour bi waxanteek moom la muy waxanteeg moom fekk ko Touba Tawfiq ci deuxième tour bi kere bi muy wax sëñ bi li mu bëgg sëriñ da ko wax ko Cheikh Thioro mii sama nopp bii la ko dugal ma jotali ko sëriñ bi bokk na ci la waxoon sëriñ bi su ma jotee ci réew mi dinaa jàppale sëriñ bi ci liggéeyam bii ci Touba kon bi mu toogee xalaat ni Touba am na lu mu yellool Touba am na dayo Touba am na gëdd mu yónni booba ministère bi nga xam ni moo yoroon moo nekk ministre des di Mor Ngom mu ñëw fii ci Touba Tarim fekk fi sëriñ bi nuyoo ànd ak mbooloo ni président Macky Sall moo ko yónni ni ma naa ko waxal sëriñ bi ni ko ginnaaw assainisse assainissement bi nga xam ni moo am ci 2012 2013 ci Touba damaa bëgg a def benn autoroute diggante cees ak Touba. loolu ñu jot li ko sëriñ bi sëriñ bi ni ko tekk ni ko loo wax mu ni ko damaa bëggoon président nee na dafa bëgg nga ñaanal ko diggante Thiès ak Touba. mu def ko autoroute loolu bi mu ko waxee itam sëriñ bi nangul na ko teg ña fa nekkoon ñëpp itam wax ji rëy ci ñoom ndax dafay lu diis bi mu demee sëriñ bi ni lu mu wax ñu ma ni ko nee na président Macky Sall moo ko yónni ngir bëgg a def diggante Touba ak Thiès autoroute mu ni du yomb de man ko waaye ñaan man na lu nekk nga ñaanal ko soo ko ñaanalee dina nekk waaye alhamdulilahi rabbil alamina pas-pas lu munta nekk amul li am rek mooy ak dogu ak yéene ndax Cheikh Abdoul Ahad radiallahu taala anhu dafa wax ni def li nga man taxatu nekk jàmbaar dangay fekk lu ñëpp ni mënoo ko nga ni rénkum dugg ci suñ borom jàppale na nga am ndam te président Macky Sall moom la def ci autoroute Oula Touba keroog bi ñuy pose première pierre bi sëriñ bi woo suñ Cheikh Badou Abdoul Khadir ni ko dama bëgg nga wool ma mboolem njabootu sëriñ bi suñ waxee njabootu sëriñ bi nag mooy ku ko yaakaar yaa ngi ci biir ñëpp génn ñu ànd ñu dem pose première pair bi ndax lii dafa may fàttali keroog Senghor bi muy pose première pierre bi ak sëñ Fallou mooy yoon wi jóge woon cees jëm si Touba tamit goudron bi daf may fàttali keroog Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu taala anhum bi muy pose première pierre bi ànd ak sëriñ Fallou ak rakkam yi Cheikh Mouhamadou Bachir ak njabootu sëriñ Touba gi di te xeeru raayu Touba bi daf may fàttali keroog bi Cheikh Abdoul Ahad di pose première peeru marché Ocass autoroute diggante Mbacké ak Touba ak rocade bi kon damaa bëgg ñëpp génn ma dem teg xeer wi su ma ko tegee ba noppi nag bàyyi fa sama jëwriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha mu àggale liggéey bi la ma fa war a wax lépp yow Serigne Bassirou nga waxal ma ko Cheikh Abdou Cheikh Sidil Mokhtar radiyallahu taala anhu génn àddina bi yëpp dar ko njaboot gi yëpp dar ko mu dem pose première xeeru oto ila Touba alhamdulilahi rabbil alamina ñuy dox di dox ba tey autoroute bi àgg na ki nga xam ni moom la joxe ñooñ joxe ñoon muy du Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moom la fa woon bi teg ci loxoom tey muy Serigne Touba ñuy ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te may ko wér bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ba mébét yëpp mu àggaleel ko Serigne bi muy ñaar fukki fan incha allahu ci weeru décembre bi nga xam ni moom la Serigne bi wax ni président Macky Sall incha allahu dina ñëw. ubbi si autoroute Ila Touba boobu nga xam ni incha allah dina yombal dem ci mboolem ñi nga xam ni ñëpp euh, dañoo bëgg dem soowu wala ñu bëgg a dem Fuuta wala ñu bëgg dem Jolof wala ñu bëgg a ñëw Bawal kon autoroute baa autoroute baa ngi noonu euh, Macky Sall lim diggoon Sëñ Touba def na ko lim diggante woon ak Cheikh Sidi Makhtar def na ko kon nag Serigne Touba moom la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon liggéeyal Serigne Touba moo lay fayal boppam ku liggéeyal Sëñ Touba moo lay fayal boppam waaye liggéeyal na Sëñ ñooy njabootu Serigne Touba gi ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañu ñun ñi nga xam ne ay africain lañu mu def liggéey bu mel nii sañ nañ ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndimbal ndimbal mooy li nga xam ne soo ko amee loo tàmbali di nga ko àggale lépp loo song di nga ko daaneel lépp lu la songu dina daanu loolu lañ koy ñaanal kon autoroute baa ngi noonu eh, yéen waa Touba autoroute baa ngi noonu yéen waa Bawal mu nekk loo xam ni lu am njariñ la ci wàllu koom ci wàllu économique ngir dafa nekk day dara dafa nar a nekk carrefour boo xam ni suñu ko xamee saytu ko dina am lu bari lum jaral lum jural ñi nga xam dañoo dëkk Touba ci wàllu koom-koom ndax euh, tey euh, Kajoor ñoo ko séq ak Bawal ak Jolof ba Fuuta ndax li tàmbalee Fuuta dem Jolof ñëw fii ci Bawal jaar Kajoor lépp ba keneen ngay dem dakaaru loolu seen xéewal la rawatina ci sous bi nga xam ni dañu bàyyi ko ay Mali bàyyi ko ay Niger bàyyi ko ay euh, euh, Côte d'Ivoire bàyyi ko ay Burkina Faso di jaar si fii yëpp loolu lu am njëriñ la kon ñuy sàkku ci ñëpp ñu génn ni ko sëriñ bi bëggee sargal ko ànd ak moom ci yar ak teggin ba ñu ubbi ko ci jàmm ak salaam euh, te ñu ñaan yàlla suñu borom mu nekk yoon wu sedd guy woo xam ni kenn du ci loru suñu borom mën na ko yàlla na ko def bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam waaye nekk na lu rëy loo xam ni jàpp nañu ni eh, ci li jëm si Touba kenn mosu fee def lu tol noonu ci ab liggéey ndax ñeenti téeméeri milliards ak fukk ak juróom-benn 416 milliards moom la eh, autoroute Ila Touba bi jar te loolu nekk na lim boo xam ni lim bu am solo la bu am importance la président mag Sall xam ni Serigne Touba dara réyul ci moom. Hmm. Serigne Touba lu ñu ko defal Serigne Touba ëpp na ko waaye na sant yàlla xam ni moom. dugg na ci biir ñaanu Serigne Touba gi nga xam ni ñaan na ko suñ borom suñ borom nangu na ko kon autoroute baa ngi noonu ñu fas yéene incha allah soññ ci mboolem waxuma sax taalibe yi waaye képp koo xam ne sénégalais nga mu tàmbalee ci euh, mën naa wax ni tàmbalee jas ñëw ba Thiès euh, Tiwaawoon euh, dem dem cene ba jaar xombal jaar Bambey ñëw Jurbel ba ñëw tuubaa dem ba Daara Jolof dem ba Fuuta ñoo ñëpp dañu war a génn ñëw tey ñu ànd ak Seex Mouhamadou Mountakha ñu inauguré eh, autoroute Ila Touba àllarba incha allahu ñaar fukki fan ci weeru ci weeru décembre bi ci ñetti waxtu jotee incha allahu kon ñi ngi sant yàlla ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nekk yoon wu sedd guyu boo xam ne kenn du ci masa loru bi barakati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam ila Touba ila Touba إلهكما